Euh, déjà sant sunu borom bu baax ñi bi nga xamante ni fekkee waat nañ bés bi nga xamante ni bés bu am solo la yàlla mënoon naa dogal ci ñun ñu ñëw voter comme simple euh, citoyen mais yàlla dafa dogal tey ñuy ñëw en tant que candidat donc euh, bokk ci list sàmm sa kàddu mais comme ni ko ñëpp xamee ici dans le département de Mbour l'intercoalition a décidé que Takku Wallu la ñu fiy voter donc loolu tamit dafay wane la particularité Euh, bi nga xamante ni xëy na sunu borom defal nañu ko ci ci bés bi. donc loolu li ci jiitu mooy sant sunu borom bu baax a baax a baax sant aussi waa Caajaay yëpp euh, ci ni nga xamante ni noonu la ñu euh, teeroo tatagal ñu ak ni ñu jële sunu entrée en politique depuis que nous sommes entrés en politique loolu tamit ñu ciy sant sunu borom bu baax a baax. donc ni ñu ko constaté comme ni ngeen ko gisee yéen tamit muy affluence amagul comme ni ñu ko constaté un peu partout sur l'étendue du territoire waaye ñoo ngi njort ne. ci euh, après midi bi en début d' après midi sénégalais yi nañ génn dem voté ji en masse parce que loolu tamit lu am solo la parce que élection yi élection yu am solo la ci juróomi at yi ñu jëm loolu moo tax ñoo ngi ñaan ñëpp ñu génn dem voté ji. def li nga xamante ni moom mooy seen euh, warugar seen devoir citoyen pour permettre quand même au Sénégal ci juróomi at yi ñu jëm en tout cas ci li ñu bëgg ñun ci juróomi at yi ñu jëm ñu mën a jox une majorité confortable à l'opposition pour ñu mën a joyanti li nga xamante ni moom la nguuru euh, Bassirou Diomaye ak Ousmane Sonko di def depuis juróom-ñaari weer yi. sant sunu borom bu baax a baax ñun dañu am particularité ak toujours ci élection yi ñun en deux ans on a fait trois élections en deux ans. on a fait trois élections donc loolu aussi day wane ne euh, te bari na ñu ñu fi fekk ci langue politique gi waaye mosoo dégg ñu dem élection. waaw bari na parti politique yoo fi dégg mosoo dégg ñu participer élection ñun en deux ans on a participé à trois élections loolu day wane dynamisme suñu formation politique day wane vigueur suñu formation politique mais day wane aussi détermination pour bokk ci euh, tayu réew mi ak ëllëgu réew mi ak ni nga xam noonu lañ bëgg a réew mi. loolu si dafay nekk un autre message à la jeunesse wax leen ñu jël seen responsabilité weesu nañ fu jeunesse di nekk chair à canon weesu nañ fu ñu leen jëfandikoo ci politique mais dañu toll ci ñoom ñu jël seen responsabilité xam ne le pays ne se fera pas sans cette jeunesse là vigoureuse intelligente et qui est très déterminée pour l'avenir de ce pays donc loolu daal mooy message bi ma am donc di sant suñu borom encore une fois di sant Sénégal di ñaan yàlla mu def si Sénégal jàmm parce que loolu mooy suñu tradition waaw mooy taxawaay bi ma amoon toujours rek caajaay moom yaakaar naa ne ki fi mujjee juddu tey boo ko laajoon yéene Pape Djibril fal mën na la ko wax donc aw ma preuve bu may joxe ci yéene bu ma am pour caajaay donc aw ma preuve tamit boo xamante ni dinaa ko joxe ci sama sentiment bi ma am d'appartenance à caajaay aw ma preuve bu may joxe waat tamit ci bokk gi nga xamante ni moom laa bokk ci dëkk bi donc vraiment am nañ ci yéene bu rëy a rëy boo xamante ni ñoo ngi ñaan suñu borom mu mottali ko defal ñu Euh, li nga xamante ni moom mooy mën a tax ñu impacter positivement euh, cette ville la te yaakaar naa ne booba ba tey euh, saa bu ñu xëyee moo ngi ñuy moo ñu ciy dimbali di ñu ci taw feexal te jàpp nañ ne yéen a jooju incha allahu taala suñu borom dina ko mottali. xam nga dañu war a génne violence ci espace public waxuma la sax espace politique mais espace public tout court dañu ci war a génne violence. violence amul sens donc nañu fexe ba mu génn ci espace public génn ci espace politique. mën nañu def euh, bataille d'idées